xam nga ni àdduna bi yëpp a ngi lay seetaan jamono ji waa Lutte TV waa Lutte Sénégal ah, mhm. ah. nee nañ nag nee nañ. an sa question bi yow. mel ana sa question bi. bi mi ngi xulóog man ah. bi mi ngi xulóog man naan ma ay sama question bi tontu woo ko yaa ko jëlale man wax ma question bi man lu ma gis daa ok. ana question mu bëgg a xeex ak man nii. alhamdulilah. <laughs> répondre ko question bu ko tooñ. lii nee na sa doom yi dañoo rafet macha allah. <laughs> neex merci beaucoup. ne ko lu tax mu. Ah. nee na lu tax nga ñëw ci ci ci concert Sidi Diop bi lu tax nga ñëw fa te yow lu bari duñ lay gis ci ay soirée ak ay concert nee na nga ñëw kon da ngaa sii Sidi loxo te am na ñeneen ñu la doon invité ñëwoo. non du loolu du loolu xam nga man wax dëgg yàlla euh, Sidi suma frère la. donc vraiment ba mu xewlee dafa ñëw ba kër wax ma ko en même temps mu dëkk Géejawaay donc tamit di bëgg ñëpp mu nekk affaire banlieue. Uh-huh. donc vraiment aussi. mu xew la ñu wax ma wax ma dem fa waaye man bëriwu mooy tànk yoo dëgg yàlla wax na dëgg nag mais si dafa ñëw sama kër ñoo wax dëgg yàlla wax wax ma ko aussi ma dem ca sama doom doon anniversaire aussi tamit bon mu dégg loolu bàyyi itam ñëw ci loolu te yëgalu ko kon nekk na geste boo xamante ne vraiment loolu rek la ma parce que gëm gis naa ne daf ma yëg daal. waa kii nee na. Hmm. nee sa sa sa sa gëm-gëm sa am bi ba ak loo wax rek ci làmb ne danga koy def yow loo wax rek ne maanaam bi la dalay gis ngay bëre ba tey loo ne koy def rek koy def nee na pour lan loolu loolu yow <laughs> ne ko loolu dara loolu xëy na yàlla moo ci def jàmm rek ne ko yàlla moo ci def jàmm waaw ñu koy sant suñu borom loolu kese la mais <laughs> du leneen ndax ñun duñ dara ay sagaru nit lañu rek wax dëgg yàlla mm-hmm. waa kii nee na ndax am nga waykat kan mooy sa waykat kan nga bëgg kan ngay déglu di bég di di di miir. waaw damay déglu musique yëpp nag maa ngi déglu musique yëpp. Mm-hmm. maa ngi déglu yëpp maa ngi déglu Pape Diouf maa ngi déglu Wally Seck maa ngi déglu Youssou maa ngi déglu Sidi. Mm-hmm. maa ngi déglu taasukat yi mbalax maa ni yëpp rappeurs yëpp. maa ngi déglu taxaw waaw yow téeméer na mi yow yow yow yow moom ci <laughs> dégg. dégg la kii nee na kii ne moom nee lan la quoi Tapha Kara Tapha Kara mooy yow lu naturel la Boucher bu say photo yi démb yi yàggul keroog maa la koy envoyé loolu yàgg Boucher da ma yàgg bëgg loolu du tey dëgg la wax dëgg yàlla da ma yàgg bëgg Birahim ma xool bi la yéet vraiment ku baax nga ma jàmm la ci yow ma toog kon doo rek ne Birahim gon jëlal question ma xool Pape Seck Touba Couture nga ne kii nee na Pape Seck Touba nee na lu tax nga rafet xool ah parce que man taalibi laa moo tax xam nga rafet xool moom bu la sa yaay yaree maa ngi ci forme moom nga nekk ak sa yaay sa yaay yar la sa papa yar nga nekk donc li ngay mën mooy nga rafet xool yéen ñëpp jàmm parce que man loolu laa xam yéen ñëpp jàmm bëgg ñëpp bon parce que loolu mooy tax nga am jàmm boo yéenewul kenn jàmm doo am jàmm. Mm-hmm. man noonu laa ko jàppee quoi. waaw looy am yéene yéene ko. baara ko maa ko raw lu bëri bëri maa koy bégg bu baax moom it. macha allah nee na bëgg amul mbër géejawaay la rek. dëgg la maa ko raw. Hmm? Yok mağaralı